Siga laay De Siga ngoog nga lii lan ah! waa di la nuyuwaat. ñu gis la nga tuus léegi lu neex lu wàll dégg bi. non lii xam nga danoo dëkk parcelle waa parcelle nekk suñu ginnaaw foog ñu leen di bëggal ndax danoo ànd ay nit loolu rek mais du dara. waaw gis nga bëre xale bu mën a bëree. muy caat guddee. non kaa guddee ñu ngi bëre ak moom mais ñun igir sax xam-xam lañ nekk. tey soo gisee équipe bi mel nga xam ne tey dañu yob te ya bu ñu indi yàlla na yàlla suturaal ñu rek yàlla nañu yàlla may ndam bu neexee suñu borom yàlla nañu yàlla may ndam rek. dina ñaanal li la wax ba ci kanam. waaw yàlla baax na yàlla nañu yàlla suturaal rek may ñu ndam. jaajëf merci waay kontaan nañu Sow nuyu naa la. fay nañ ñu gis la ngay waaj combat combat dafa mel fo dong koo foog. bu baax. suñu la. ah. ah. gis la nga ñëw andi public bu meer bu public bu bari ñu gis taxaw taxaw même ñu gis la nga ñëw andi public bu bari waaj combat bi gis tuus bi am ambiance nooy waajee tey combat lool loolu donc moo ñu war ci làmb ji. promoteur luñ ko dara lu dul lii. yab ñu. lii donc lañ mën a wane ci làmb ji yàlla may ñu ndam. ok ci kanam mbokk yi ñu doon defa une minute de silence bu géwél Boom X FM ñu koy ñaanal foofu mu jëm gënal ko fii mu jógee def na ci làmb lu ne moom bu géwél boo xoolee moog Fatima nekkoon nañu XFM ma nekkoon auditeur daan ko woo moom bu géwél yàlla na ko yàlla yërëm taxawee ko aljana làmb ñàkk ma ne ko làmb sax a ñàkkati nag kaagu deema ngoog di jox confiance ay supporters am 2 Giga ngi noonu làmb ngi nii mbër Dalifort ngok Kaw Gourdin 2 Giga mbay gi ñu woo ñu fii arène làmb ju neex <laughs> ku xef doo gis tey laay Kaw Gourdin maa ngi nuyu jàkk borom parcelle jaak ci may jaak nuyu naa la doomu ndey Kaaw Gourdin abit baa ngi wax ak ñoom Deux Giga ñëw na taxaw làmb ju gaaw ma ne leen caméra yi bu baax Kaw Goundé 2 Giga 2 Giga mbokk yi xool moo xaw a Kaw Goundé Deux Giga saako xam-xam bu père Birame Ndiaye Kaw Goundé écrit daal fo abit bi sifle na Kaw Goundé leen jàkkaar lool Deux Giga mbokk yi moo ñu grand combat bi fii ñoo ngi fii ci arène nationale Cheikh maa ngi sat te le janvier il est 18h18 lamb ji <laughs> ndaw combat bu gaaw Kaw Gourdin ngi dox ci kawam man su ko doon digal dem naan ko na tey kenn du 2 giga xale boobu ngi dox ci kawam Kaw Gourdin 2 giga 2 giga sàkk xam-xam bu Birame Ndiaye Kaw Gourdin ñoo ngi lewtoo ñoom ñaar Kaw Gourdin mbokk yi moo ñu wan ginnaaw 2 giga moo jàkkaarloog ñun bu doon maay kaaw gu doon du ma xeex ak ndax boo xool mbokk yi 2 Giga moo xaw a tuuti ñool ñu ne moo ëpp tuuti relose kaaw gu dee nga ci kawam kaaw gu dee 2 Giga gëm naa buñ jàppante <laughs> gëwuma làmb ji yàgg làmb ji gëwuma mu yàgg maa ngi nuyu sëñ Basirou ak ji li moom mbax daat ngi foofu ci Iba Mar Diop association des promoteurs woo ñu foofu teg 5 millions Kaw Gourdin 2 Giga ñoo ngi jàppante loxo Olof Ndiaye di ko wax damante baaraam Kaw Gourdin mën na léegi waaye demul 2 Giga cokaas na waaye dalul Kaw Gourdin 2 Giga Kaw Kaw Gourdin ngi dox ci kawam Kaw Gourdin mbëb na léegi 2 Giga cokaas na. 2 Giga Kaw Gourdin Kaw Gourdin ngi angli door na ko léegi moom 2 Giga door na ko léegi moom 2 Giga su doon maa Kaw damay naan yoo ci tànk yi daw na jël ko li ma loola def daan ko daan na wala daanu ko ko Kaw Gourdin 2 Giga na ko léegi mu bañ ah ndaw làmb ju neex mbay yi ki nii ci saxabal bi xeex nañu ah Kaw Gourdin 2 Giga Kaw Gourdin 2 Giga jàppante nañu Kaw Gourdin cokkaas ko daw jël ko plaqué ko waaye deux daa bañ jàppante abi sufle waat na Kaw Gourdin dafa ndànk Kaw Gourdin dafa ndànk daw na jëlaat tànk ba fàqat na ko daan na ko daan na na Kaw Gourdin deux Giga na Kaw Gourdin deux Giga na Kaw Gourdin Akbar. ñun ay ndaw lañ parcelle lañ dëkk nee naa la ñun daa am luñ soxla. daf leen ñëw. ñun ñuy sax xam lañ nekk am na du dañ bu xeexee daanu bu bëree daanu bu neexee suñu borom ñu champion lañ bëgg a nekk non père baa leen was keram rek